aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakatu cheikhul xadim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho noo ngi fas yéene di siwaat ci seen émission Hormay Touba fas yéene ci ànd ak gan koo xam ne moom lañ ci fas yéene dalal ñu koy wax Moustapha Gueye taalu bi Serigne Moustapha Massamba ñëpp gën koo xam ci waxtaan ci sëriñ bi ci ay jaar-jaaram ci wàllu histoire tey nag ñu dalal ko fas ko am poj ko laaj yoo xam ne dañ koy jëmale ci mu Touba muy sa spécial Cheikh Moustapha gannaaw ba nga xamee ne dalal nañ la tey ci seen émission Orgay Touba ñu ngi lay laaj dëkk bi fii nga xam ne tey fi la toll ci population nga xam ne moom la amee ci ay nit nga xam ne jéggi na dayoo mën nañ ne mooy deuxième ville de Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dëkk di ay taalibe ñi nga xam ne ñoom la wax ay sëriñ. waaye Cheikh Moustapha ñi nga xam ne ñoom lañu jàppee ay sëriñ nga xam ne mooy ñi sant Mbàkke ñi sant soo ñi sant sant yooyu yi nga xam ne ñoom la seexal tey ban orma lañ war a jox Touba est-ce que ñoom war nañoo jalgate lu nuroog orma ba tax taalibe yi di leen ci roy wala est-ce que war nañoo digal taalibe yi loo xam ne sii day waral xotti ormay Touba comme ça su ma waxee noonu dafay mel ne lu jëm ci wàllu politique. waaw ndax sëñ Axmadu Mustafaa ñoom ñooñu bi leen sëriñ bi di boole ci boppam ah ndax euh, li taxoon mu di leen ci boole da ndax daf leen a jaamuloo yàlla wala ndax daf leen a bërgal noonu rek lu neex waaye def point boobu lañ bëgg nga dikkal ñu ci tey lu yaatoo yaatu loo xam ne danañ ko mën a ànd ak ñi nga xamante ne si ñooy bokki auditeurs yi waaye kon duñ daal di def rek lu dul bàyyi la xam naa soo nuyoo rek ba daaneel rek ñu mën ngaa continuer ci laaj boobu su ko defee rek ñu ànd ko ak gi nga xam ne si ñoom ñoo ñuy déglu kon Cheikh Moustapha bismillah kon tafadal ma waaw jërëjëf sang bi ñoo ngi siyaare bu baax ci dalal gi ñu dalal di laaj ci ormay Touba bi nga xam ne ajjuma di jot dañ koy amal di ko def tey nag ñu ànd ceeg yow ah muy lu am solo nag loo xam ne jaatu na saa su nekk ne jël ci waxtaan ndax dana jëriñ ki nga xam ne moo fa dëkk waaye dana jëriñ ki nga xam ne it mooy ab taalibe bi nga xam ne dafay nekk ci bitim réew di fa liggéey te ak njabootam nekk foofu wala fu mu mën di nekkit foofu nekk Toubaam dañ koy considéré comme ki nga xamante ni si rek moom moo dëkk Touba. comme nag loolu nga wax nga xam ne dem na ba population bi dépassé na dëkk léegi am réew la ah léegi nag foofu dafa nekk loo fu ab sow sow jar a taxaw nag waxtaan ndax la leen fa indi lépp dafa am lu ko waral. waaye ñoo nga tudd nga xam ne ñoom la ñuy jàppe ay sëriñ nga xam ne ñooy ñi sant sant wu mag bi muy Mbàkke ak ñi nga xam ne ñooy Cheikh Seck ñi ci aju nga xam ne ku leen gis rek ñu ay sëriñ lañ ñu sant Boussard ñu sant ñu sant yeneen sant yëpp nga xam ne ay Cheikh lañ ñooñu ñëpp it ñu ngi ci biir lii nga xam ne moom lañu fas yéene wax ndax xam nga ni tey ku ngeen gis mu nekk ci biir Touba ah, te ne sëñ Touba ay sëriñam kooka am na ab sëriñ waaye ci sant yooyu it la am ay sëriñ benn mu nekk ci sant yi nga xam ne mooy sant niñ gën a xam waaye walla mu nekk ci sant yi nga xam ne it eh, bokki sëñ bi lañ waaye sëñ bi seexal leen it ba nga xam ne nekk nañ ay sëriñ su léegi nag ñooñu ñoo war a tëddee njaaxaanaay waaye nag ñoo war a gën a mën a wane li nga xam ne moom la sëñ bi doon jàngale ndax ñoom rek dañoo xool sëriñ kon loolu bu amee ñoom la war a def mooy jàng ak jàngal jàng ak rek ndax wax nañ ne ñii nga xamante ne si ñoom la ñuy askanale Mbàkke Mbàkke wax nañ ne li fi indi Géy indi ci Sàmb indi ci Seck moo fi indi Mbàkke te wax nañ ne it sëñ Tuubaa njëkk te sant Mbàkke ay bokkam ndax boo xoolee moom ci caat mi la cosaanoo muy Maam Balla ndax moo jëkk ñu war a am ci kon ña ca mag bari nañ amoon ay dëkkit waaye ñooñee kenn koo xamee ne mas ñu leen a mën a ŋàbbal ak la amul woon kenn mësu leen a mën a ŋàbbal ak satala te jàngoon na alxuraan daan julli nekkoon ay nit yu sell nekkoon ay nit yu baax kon la tax Sëñ Tuubaa ñu ni ko ŋàbbal ak satala ba gis nga sant aw santam ñu di ko ŋàbbal ak satala ak di ko jox addiya loola jikko la ci nekkoon ci Sëriñ Tuubaa te loola la maam Thierno doon wax naan Sëriñ Tuubaa li baatin bi rëy rëy dafa li may gi rëy rëy dafa dëppoon baatin dafa dafa dëppoon jikko ji li may gi rëy rëy dafa dëppoon jikko ji ndax maam Thierno nee na woon su fekkoon te ne rek may gi li muy rëy rëy dëppawul woon ak jikko ji nee na kon ah la daloon yónente yi dana ko dal ci ñun la daloon yónente ba ci seeni ñoñ dana ko dal ci ñoñ ndax am na ci yónente yoo xam ne ku ci mel ne yónente yàlla Nuux ak ku ci mel ne ku ci mel ne yónente yàlla Muusaa la leen daloon ci seen nit ñi nga xam ne dañ leen daan digal ñu lànk ñu wàññi ko mer de xeex ak ñoom ci baatin bi leen yàlla joxoon ba rey ci ay nit yu bari te xamuñu bu ëllëgee yàlla dana leen ko daal wala du leen ko daal loolee képp moo ñu dal ci Sëriñ Tuubaa waaye ko nee na nag kon li may gi rëy rëy dafa dëppoon jikko ji kon Sëriñ Tuubaa jikko ji mu yore woon moo tax ñu daan ko ormal daan ko topp ñu nga defar ci adduna lu bari nag door a dem nag nga xamante ne si tey mooy dëkkam bi nga xam ne moom la gënoon a fonk ci kaw ci àddina ñëw dëkk fa dëkk boobu nag bu fekkee yow di ci deret jooju nga bokk tam wóor la ne amul fenn foo mën a gàkkal sëñ Touba ndax sëriñ Touba gàkkalul boppam te daana wax ne na ngeen di moytoo def lu may rusloo ndax man defuma defuma defuma fekkuma kenn loo xam ne si lu koy rusloo la muy defuma benn tëll bi boo xam ne si wala benn tëll bi gisul loo xam ne si def naa loo ne si lu koy rusloo kon loolu deret la fu waay mën a nekk da nga ko war moo xam nga nekk biir Touba moo xam nga génn biir Touba moo xam foo mën di nekk Sénégal moo xam nga wét moo xam nga wétaliku da ngay sàmmanteeg li la boole sëñ Touba xam ne ak mbokk nekkul ne nit a koy këréel boppam nit daf koy neex mu ñëw na ca famille sangam lay bokk yàllaa koy neex mu jël mbokk ak mbokk boole leen seet askan wu ko neex mu boole ca mu boole la ci waaye du nit a koy bëgg a kon nag ku yàlla baaxee ba nga bokk ci ki nga xam ne mooy royukaay yi ñëpp mooy xaadimu rasulullah kooku war ngaa mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax defar sa jikko ji ba mu baax lool ba képp koo xam ne si teg na sa bët ci yow mën a am am njàngat mu yaatu cëlam doon dégg ci sëriñ Touba mën a am ab bu yaatu ca lam doon gi eh, dégg ci sëriñ Touba te nit kat sëñ Fallou Mbacke wax na ne lu mu baax baax baax baax baax baax baax baax nee na ñu mën koo roy ñu sañas koo roy te nee képp koo xam ne kat yaa ngi dàq sëriñ Touba. nee na leer na doo ko jot waaye képp ku lay dàq du la jot kon nañ ma dama sëñ Tuubaa loolu doomam ma ko wax moo tax doomam yooyu nag du sax rek doy nañ ay exemplaire ci lii ñu bëgg wax ndax ñoom mësuñoo jël sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen jaboote def ko cislaay loo xam ne tee na leen a euh, euh, jaamu yàlla tax na leen sàggana sàggane biiru déedéet parce que sëñ Tuubaa kenn ku ci dafa wéet ak yow def ci yow loo xam ne ba mu ko defee ci yow ba noppi dafa am kàddu yum ca teg yoo xam ne si mi ngi fi ba tey xamal ne ne lii ma liggéey doonu doo maanaam jëriñu la dara li nga liggéey rek moo la mën a jariñ dara foofu sax xam ngeen ne bindoon na fi Cheikh Mamadou Fadal ab lettre ne ko yow sama doom na nga fexe ba bul waru na nga góor-góorlu kemtalaayu kàttan ak loo man ci jaamu yàlla xam ne liñ naan la di way sa baay di way sa maam loolee mënu laa jëriñ dara la mën a jëriñ dara mooy li nga defal sa bopp te loolu xam nga ne lu wér a wér la loo xam ne luñ mën a teg baaram la te luñ mën di roy la kon nag benn cër boo xam ne nit am na ko ci sëñ Tuubaa bu tax nga bëgg a wàccandiku rek ne sëñ Tuubaa defal na ma lépp loolu mënta taxaw te loolu gis na yaatu na léegi dangay ngay gis koo xam ne euh, day def dara ñu ne ko ah, sa maama ko liggéey déedéet sa maam bu ko liggéey yëpp maanaam daf laa digal nga jaamu yàlla waaye digalu la mukk ngay mooy yàlla loolu mooy li nga xam ne moo ci am te sëñ Tuubaa yi mu boole woon mooy. jaamu yàlla ak lëggéey ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa loolee bañ ko xamee muy xaadimu rasul ba nii ñu ko mujjee gisee maanaam mos a teg ci loola ba pare it mu bind bàyyi fi bind googu mu bind bàyyi fi nag loolu mooy firndeel ci ne mag fu mu nekkul ay waxam a ko fa nekk moo tax mu teeloon a bañ ñu waru moo tax mu ne asidduxu fi mahabbati sayxaba ndax dafa wax ne sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaxatun nasamtuhu xaw fi ixtiraar arbaxatun nasamtuhu xaw fi ixtiraar daw la cité nag ñeent yooyu mu wax ngir bañ ñu war a muy asidduxu fi mahabbati seyxi abad su moom tusaalu amrihi xaysu walad wa tarkul ixtiraari mutlaqan walaw bi batixali fi ma xatawo loolu wax na ko ndax nee na murit bi ñeenti melokaan la war a am melokaan yi bi ci njëkk mooy nga bëgg sab sëriñ ah, maanaam nga bëgg sab sëriñ topp ay ndigalam bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi bañ a gaaral ndigal te bañe ni yépp di am ak ak ak bëgg ak ak ak fàgguteef euh, ci sa bopp maanaam am leneen looy fàggu ñoom bàyyi la sa sëriñ la noonu la ko sutee boobu àgg daana wax it ne képp ku ngeen gis te mu bokk ak man sant yii ak fu mu ko mën a sante na nga xam ne maa ngi moom a bokk de sama mbokk ci maa waaye nag maa ngi leeral ne kenn ku nekk la nga baax la laa bokk ak kon loolu nit ñi dañuy def très attention xam ne sëñ Touba amul ab safaan sëriñ Touba li mu am mooy lu baax kon kenn ku nekk jàppal ne loo mën a jege jege sëñ bi la nga la nga baax leen la sëñ bi bokk yow ndax boo ko waxal bokk tey li ñuy def naan sa maama ko lëg yi tax kenn ku nekk bëgg a yeccaaral wala kenn ku nekk bëgg dugg ci lu la neex jël jaamu yàlla sàggane te gis nañ la na xam na ci ñoo xam ne si biir ne boo toogoon ak ñoom ñoom kat yi doo mos a gis mukk ñu jóg jël seen dara. di julli wala di jàpp du ñëpp nag am na ci ñooñ am na ci ñu lañ wax muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi te la leen ko lañ jàpp ne maanaam mën na leen caa génne mooy sëñ Tuubaa miñ bokkal sëñ Tuubaa miñ bokkal képp te sëñ Tuubaa mosul faat waxtu sëñ Tuubaa mësta mooy boromam ci dara loolu kon ku bokk ci moom yaa war di jàngale diine di ko fàttali nit ñi ngir jëmi sëñ Tuubaa moo tax mu ne rajaa u jannati bi laa taaxaatin bi sunnatil maahi xuróorul yaat képp koo xamee ne yaakaar nga àjjana joj naroo ko jaar ci sunna su yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yàlla na la wóor na yow war a ko loolu wax na ko mu leer kon nag bu fekkee yow jàpp nga ne jaamu yàlla yow waroo koo def ndax jàpp nga ne sëñ Tuubaa da la ko lëggee yàlla yaay ki gën a dof ci nit ki loola moo tax ngay gis ñuy bàyyi jàkk yi di nekk ci bedd yi di nekk ci gumbaay yi di jaxasoo politiciens yi di leen jox ay garanti te garanti yi kat sëñ Tuubaa lañ ko lañ ko wékk ngir lan ngir médd mi nga xam ne bëgg nañ koo am bur bu seen nga dégg koo xam ne si mbooloo ma ko yàlla jox jaare ko ci sëñ Touba dafa jàpp ne mbooloo moomu maanaam ab man-manam la wala ab sañ-sañam la fekk sëñ bi da koo jël jox la ko am lu mu bëgg ci ñoom nga def ko ci ñoom nga xam ne boo gisee ñu njëkk ña ku ci sëñ bi saan boo leen mbooloo bu leen ko joxee ci seex su njëkk si nga daal dégg la ko dala ci maam Seex Anta ba ci biñ mujjee gi sëñ Touba comme jox mbooloo mbooloo moomee fekk na sëñ bi def ci yow loo xam ne bu euh, bu ko bu jëlee mbooloo ma toftal la loolee mu def ci yow da ko def ci ñoom loola moo daan am mais léegi dangay ngay gis ndeysaan koo xam ne barkeb sëñ bi ak darajey sëñ bi da koy war ba jàpp ne na mbooloo mi ak sañ-sañam la wala ab ak njàmbaaram la ba day dem sax ba ak ay lay doon ci boppam star rek boo ko doonee nag ay fans rek moom ngay mujj am xam ñu leen topp ñëpp nga xam ne da ngay dem ci loo xam ne si waroo caa dem ñu ngi lay séen ca langue politique ba nga ciy joxe ay garantie di ko di ko tuddee sëñ Touba sëñ Touba nee na ma feeñu na ma nangam ak nangam ak nangam yow kaddu yi mën ngaa wax ba jant bi so duñ dégg benn kaddu boo xam ne si day dellu nit ki ci yàlla nga laxasu ci politique bi ngir koom mañ la cay jox ak daraja jiñ la cay jox te loolee lépp xam na ne ci àddina la yem te loolee mënoo caa sooyee sa bopp mënoo caa sooyee keneen kon nit ñi yéen ñi nga xam ne yéenay toppee na ngeen xam ne Serigne Touba nekkul woon foofu Serigne Touba ku ne wax yàlla nee na yónente nee na kooka moom say ba nga teel a tàggoog moom te xam ne saytaane nga àndal ak ku mën a doon ak ku ko mën a jabatoo ndax sëñ Tuubaa nee na kenn ku nekk li nga mooy li nga xam ne dafa war a leer nañ te xam ne orma ji ñu war a jox sëñ bu la boolee ci boppam da war a tegu ci siraatul mustaqim fexe ba bàyyi ci àddina loo xam si des la ko mën a fàttalikoo waaye fu ñu la séen séen la ci langue politique fu ñu la séen séen la ci lu yàq loo wax tey bu subaa nga nga mu daj te li ngay wax lépp sëñ Tuubaa nga koy adressé di wax muy dañ di wax loo xam ne si dafa dul daf dul dafay juunu da maanaam day wax wax ju doy waar joo xam ne si dara du ci diine lu dul koom-koomu àddina nga di ko wéyal sëñ Tuubaa ba pare wax ja di dañ loolee ku koy def yaa ngi xotti or may sëñ Tuubaa kon daal point boobu moom foofu lañ ci taxawal di xaar yeneen laaj yi nga xam ne eh, yaa ngi koy laaj su ko defee ñu mën cee ànd ak yow kon jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. waaw jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moustapha kon gannaaw bi nga tontoo loolu ba loolu àgg. mu nekk tontu bu mucc ayib wax dëgg yàlla noo ngi fas yéene àndaat ak yow ci beneen ñaareel tomb bi muy bi nga xam ne moom tamit ba tey moom boobu daanaka benn la doon muy ñi nga xam ne dañoo dëkk Touba te xàmmeeluñ lu sëñ bi digle ak lan la sëriñ tubaa waxoon ci dëkkam bi wax ne ku fi ñëw moom nga war a comporté su ko defee nga leeral ko nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee. nga xam ne ñoom jàppee nañ seen bopp ne ay murit lañ jàpp nañ seen bopp ne danañ texe ëllëg te lépp ñu wekk ko sëñ Tuubaa te xëy na mooy comme liñ laajoon bu njëkk rek dangay gis ne dañ naan diw mi kat def na lu lenn kon war naa ko mën a def wala ñu jël dem ba jël lu araam loo xamee ni dañ koy dañ koy def te di ko tegtaloo ci kilifa nga xam ne kon man naa ne mooy taalibe simple yi rek nga xam ne ñoo sant Géey ak Sekk ak Jaw ak Lo cetera léegi yow ñooñu ana lan nga leen di wax lan lañu war a bàyyi xel ak euh, lan lañu war a def ak lan lañu war a euh, xool ci li sëriñ bi doon digle ñu nekk ca kon si am soo ba tey point boobu mooy deuxième bi ko defee rek bu jeexee ñu mën a laajaat beneen jël def Cheikh ci laaj boobu bi nga laaj ci ne ñi xam ne ñooy taal yi nga xam yi te jóge ci yeneen dëkk ñëw ko la sëñ ci dëkk bi loolu leen waxoon ndax nee na nit ñi luñ ko def dañuy ñëw àndaale seen maam ak jikkoy seen dëkk bi lañ ji loolu nag gis nañ ne yaatu na ndax benn ku nekk nit nga fay toxale say piji nekk ngir ñëw ne Tuubaa laa jëm dëkk boobu nag ku fa ñëw war ngaa xam li nga fa indi dara nag waru cee génn jaamu yàlla. ak topp ndigal li Sëriñ Tuubaa yi ak lu tey ak lu sa nag gis nañ ne ak waro bu métti moom am na ci ndax koo dégg mën a dem Touba ñoom bu ndikkee ñii nga xam ne ñoom lañ la jëkkoon a wax ci point bu jëkk bi xam ne war a def royukaay yi la ñuy gis ca ñoom jàpp ne loolee lu wér la te fekk dañoo topp seen bakkan loolee moo leen sànq ba tax na sax en général koo ci waxal tey lam lay wax mooy lii kat amul problème ndax gis naa sëñ diw di ko def sëñ diw bu ko dee def da koo def ci bakkanam waaye defu ko ci li nga xamee ne nii mooy ndigal ndax sëñ Tuubaa digalewu ko sëñ Tuubaa jaamu yàlla la digle kon ku def lu mooy jaamu yàlla loola sa yëfi bopp la ba tax na gis nañ ci ñu baree bari loo xam ne si loolu moo leen sànq loolu moo leen sànq ba tax na orma jañ war a jox sëñ Tuubaa duñ ko xam te duñ ko ko jox te sëñ Tuubaa nee na woon dëkk bi ku fi ñëw yor sama jikko ji moo la jik waaye duñ ko yor xam nga ne boo nekkee ci biir Tuubaa sëñ bi waxtu jaamu yàlla jot doo nangoo jaamu yàlla nekk ci lu araam rek ci ngay xëy bi ca gon benn nga di ko wax benn ba nga di ko def foo toog yaa ngi ci lu araam xamee wala ba xamee wala bon boole ko di bokkaale suñu borom di ko ak ak Serigne Touba nga xam ne lu yàlla di def lu nekk rek Serigne Touba nga koy wéer Serigne Touba nga koy wéer ànd ak ñoo xamee ne it ñoom doon jaamu yàlla su ko defee digg bi la dikk àjjana nag di la dikk àjjana ba pare dëgër ci fit lool waaw moom Serigne Touba nangam nga xam ne waxtaan wu mën a waxtaan yow rek. luy yombal àjjana rek lañ lay wax ko nga xam ne àjj yombal boobu day dem ba duutu la jaral sax jaamu yàlla duutu la jaral jaamu yàlla ndax da nga jëru ko ndax boo fekkee da ngay jànge xasida xasida sàngam boo ko jàngee sëñ Tuubaa nee nag kenn mënu laa tey dugg àjjana xam nga loolu dangay ngay dégg ñu di ko wax yaatal ko lool nag te li tax ñu di ko wax mooy ñoom wutukaayu xaalis lañ ci lañ ci lañ koy def addina lañ ci yoon ñoom mën nañ ko ñoom ñu koy wax sax mën nañ ko bañ a waaye wutukaayu xaalis ko defee yow ñu mbaal la ci ba jàpp la nga làmb sa poos joxe ba pare nag sa war a taxaw di la xaar ndax xam na ne Sëriñ Tuubaa mosul wax àjjana jenn jooy dugg joo xam ne doo ko jaar ci jaamu yàlla mosu ko tudd xasida yii ñu koy askanale nag nga xam ne moom mooy karaamam nga xam ne lu ne def na ko ci lu ne wax na ko ci xasida yi boo koy jàggit na fekk ñaar yi nekk ci yow di jaamu yàlla ak ji liggéey jaamu yàlla ak liggéey ñaar yi boo ko boolee xasida yi day warteef ci yow waaye soo bàyyee ñaar yooyu xasida du ko war def ci yow waroo ko jàng te loolu dañ leen ciy boole di leen ci yombalal addina xasida sàngam boo ko dee jàng da nga am ay milliards nga xam ne dañ lay wax naan la gan xasida moo baax ci njàng gan xasida moo baax ci njaay gan xasida moo baax ci nangam nga xam ne ñi la koy wax ñoom jéeguñu ko proprio ngir yàlla dañ koy wax jàng ngir intérêt addina buñ ciy kar ak yaakaar ci àjjana joo xam ne tey jii da nga gis ñu di ko solo bu rëy ne ci dëkk bi di lëfër lëfër yi jël mbindum Serigne Touba moo xam ne am na ci xasida yoo xam ne si malaayika yi ñoom ñoo ko bind ndax ñoo dikk dikte Serigne Touba ne ko bindal araf sàngam mu bind araf sàngam ñu ne ko bindaatal araf sàngam mu bind araf sàngam ñu ne ko bindaatal araf sàngam mu bind ñu ne ko jàngal mu ne ah lii araf sàngam la ñu ne ko dolli ci nangam dolli ci nangam ba xasida ga ba mu tudde ko xasida goo xam ne nii eh, sëñ bi da wax yu malaayika la am xasida yooyu nee na ci maa ngi ko recopier ci laxawul ma borom daf ko ubbi ma xool di copier di copier di copier ba copier la ma sot na ko baax mu daal di ubaat mi ne laxwil mahfuus yooyu ay ay mbir la yoo xam ne nit ki ngay xam ne moo koy jàng da ko war di seetantal waaye boo dikkee ñu daan lay jël teg la ci kaw jël xasida yi ne la moo dox sa diggante ak àjjana jarul jaamu yàlla nit mën naa jaamu yàlla te bu xëyee nangam ak nangam yooyu lañ lay gëm la te loolu lëggéeyu saytaane la boo xamee nekk nii ci ñooñu la koy jaare ci seen i làmmiñ mu dugg ci noppi taalibe yooyu kon ñooñu duñ xam sëñ Tuubaa ba àddina tukki te jàpp nañ seen bopp ay murit murit bu nanguwut a jaamu yàlla yow sëñ jotewul sëñ Tuubaa dara murit bu dul déglu lu baax jotewul sëñ Tuubaa dara da sëñ Tuubaa yii ñuy wax yëpp wax na ko bàyyi def na koy dénkaane dajale nañu waxtaanam yëpp teg ko waaye nit ñi fasuñu ko yéenee déglu nit ñi lañ bëgg mooy ku leen di yombalal àjjana te du jaar ci jaamu yàlla ak ñoo xam ne si ay star la ñuy doon sëriñ boo xam ne si ñëpp dañ lay xam fuñ la tudd ñu naan eskay eskay ba buñ tuddoon Serigne bi nga xam ne moo la booleeg moom sax du la jaral dara waaye buñ tuddee sab Serigne rek nga jóg mu pëyi ferle dool fa sa bopp buñ la waxee lu tax wala lu mu la defal mënoon koo wax la maa gis nit ñi daanu rek ma daanu wala sama Serigne ko wax te Serigne boobu yilifu la moomu la Serigne Touba dafa laa booleeg moom te li tax yilifu la moomu la ku la nangoo yilif ku nekk ndax alal ji nga yor bis boo faatoo la muy mujjee ak yow buñ ko ko waxee kañ la doon la day wax ana kañ la kañ ko def gaaw leen jël yóbbu wàcc ko fa ñu wàcc nit ñi ku xamul kañ la nag doo xam naka la te kooku yi nga jàpp sëñ Tuubaa mu teelaa jaamu yàlla kat ngir lu la lay yombalal ngir boppam sëñ Tuubaa tuddoon na ko na ngeen di moyte ne ko ku ma dégg ba ma jaral ko jóg bu dikkee bu leen ne supp rek mën a gis ci yéen ñu ma xeebate ba liñ ma naroon ci man duñ ko def gis naa ne mi ngi ñëw ci ëllëg waaye bu ëllëgee ñi koy def bala ñoo jéggi si laa dañ ma àttal kon sëñ Tuubaa leeral na ko ak ñi nga xam ne dañuy wane seen bopp dañuy xeeñ xunn xunn ak ak ak parfum bi nga xam ne mooy sikki sol loo xam ne si dañ koo gome moom na jong tegal ko place bu baax si lii sa neex a xool lool taalibe yi di ñërëm ñërëm bi ñëw di sukk ci wet gi di laaj ba seen addiya te ñi koy joxe bayu dépasse seen kër waaye sëñ Tuubaa jaral na leen teraanga joojee ku la ko sëñ Tuubaa defal nit mën a ñëw toog ci yow ba jóge fi te du dégg mukk nga ne ko sëñ Tuubaa nee na te sëñ Tuubaa boole la moom alal bu ñu lay jox ngay jël rek di denc ci compte banque ak di ko nga xam ne mbirum adduna doon ci ngay xëy ci la gon kenn lu mas a dox ba gis nga sant fenn loo xam ne si luy jëmmal sëñ Tuubaa la loo xam ne si mën nga ne raye naa ko ca la sëñ Tuubaa daan def ci sañ ci dëkk ak di jàng benn sol ak summi ko ak wootee cant ak màggal rek maanaam nekk ca kaw loola képp koo xam ne ànd na loola dina la wóor ne sëñ Tuubaa waxoon na la muy wax bu leer bu ëllëgee boo waroo yaawar sa bopp kuy dem da ngay ànd ak kuy dem ku jë fi barab waaye ku jëmul fenn furul ci boppam képp ku ko topp fa mu ba fa ngay te bu ëllëgee du la mënal dara te bu ëllëgee nag na la wóor ne seytaane dana la jël kon loolu nañ koy xàmmee bu baax a baax jërul di topp ci gannaaw koo xam ne si ngir aw sant képp la ndax sant bi waxoon nañ leen ku ci jël boobu li fi indi jaw indi fi sekk indi fii nuy moo fi indi mbàkke mbàkke ab jàngalukaay kepp la moo tax sëñ Tuubaa ay bokkam bañ di ko ngàbbal ay satalam kon bu ngeen di xool nit ki bu nee ne yàlla nee na yonent nee na ngeen xool ko muy dëgg dem leen ngeen toppi kook ndax loola rek leen mën a jëriñ waaye mënul leneen mënu leen a jariñ ku fi wàcc sëñ Tuubaa mooy keneen nag na la wóor ne da nga da nga war a wàccagum kon dëkk bee du ay dëkkub caaxaan du dëkkub tappale dëkkub jaamukaay yàlla ku ngeen ci topp it mu di leen jëmee feneen fu dul fi yàlla santaane wàcc leen ko feneen parce que sëñ bi doyewu leen woon pour politique waaye da ngay gis koo xam ne si ndeysaan day dem di santaas ak état di natt ay taalibeem ku ca yokk mu xam daal di bëgg ku ca wàññi ko mu mer commencé am naa naa ngeen taalibe daal di joxe ay chiffres di col col ko yu doy war di wadd wadd ci seen kaw di ko waree ne ko boo ma joxee nangam danaa fexe ba ñi ma digal leen ñu ñu jàppale ma waxul ma digal leen ñu jaamu yàlla de te digalu leen benn yoon jaamu yàlla cëppi cëppi sol fecc ree rek la leen jàngal ak di leen santaas ci nit yi àddina yi nga xam ne ñoom lu dul tasaare mbooloo mi moo leen ko gënal dañuy ñëw am ci yow liñ bëgg ba pare nag buñ sañoon nga daal di tasaaroo ñu seetaan la fële bàyyi la loole nag kenn ku nekk war na koo moytandiku sa kon ku ànd ak ñu mel noonu ñu di la yóbbu ci politique bi di la di di la santage te lañ cay am ci seen bopp dong la la jëmaat loolee ku ca yaakaar àjjana ëllëg yoo xam ne si ci sëñ Tuubaa nga ko bëgg a jaare da nga waru kon xàmmee leen nit ñi nga xam ne dañ leen di woo ci yàlla ak ñi leen di woo ci li nga xam ne mooy julli loolu la loolu dafa war a leer bu dee politique dong politiciens yi mën ngaa dem jébbalu ci ñoom te xam ne ñoo yam te loolu moom jaamu xiram ñoo yam jaamu koo xam ne mën duna la yàlla nee na duna la yónnante nee ay boppam dong la layoon ak i karam loolu loolu yomb sëriñ si bu baax su tedd si ñi ngi ci biir dëkk bi Touba bari fi lool kenn mën leen a ñu macha allah yal na yàlla yokk te ñooñu la sëñ Touba wax naan furriyatan tayyibatan ci jaddi na ja nabiyal Mustafa ci tëb sët yooyee nag sëriñ Touba leen tànnal boppam bu bindal leen bàyyi nit wahab lanaa furriyatan tudiimu al amala sëriñ Touba waxul sët yëpp de dafa am sët yu mu tànnal boppam ba cité leen biiral leen kon sëb yooyu képp ku ca bokk ñooña doo mën a déggati lenn lu dul yàlla nee na yonente nee na te ñu ngi fi bari bay bëgg a dee waaye nit ñi dañoo jëmul fenn képp ku jëmul fenn daf leen a gërëm mbooloo mi jox la mbooloo nga leen fecc loo ko cëpp cëppiloo defe na loolaa tax suñu borom yàlla jox la loolu taxul yàlla jox la ko yàlla daf la ko jox pour nga jaamu la leen yàlla kon ñi ngi taxawal di foofu kon xam naa ci ñaareelu laaj bi ñëw ci ñetteelu laaj bi jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax kon di la gërëm. waaw kon Cheikh Moussa jërëjëf tontu bi na ci poñ boobu yi nga xam ne mooy deuxième poñ bi ñu la nga xam ngeen ne yéen ngi topp seen émission bi nga xam ne mooy Hormay Touba ak li ci aju lépp nga xam ne dañ koo jagleel bés bi spécial mooy suuf euh, ay ajuma bi nga xam ne ajuma bu jotati rek dañ ciy àndaat ak yéen. waaw kon nag gannaaw bi nga ñëwee ci laaj bi njëkk bi nga xam ne moo jëmoon ci kilifa yi nga xam ne ñoo dëkke Touba tey joxe digal forma ji nga xam ne moom lañ war a jox Serigne Touba gannaaw bi yëpp ñu ñëw ci ñaareelu laaj bi laajoon li nga xamante ni fii mooy taalibe bi nga xam ne dafay xool kilifa yi lu ñu def nga def ko moo xam nag muy loo xam ne du lu yàlla gërëm waaye ndax tegtal yooyu nga xamante ni fii moom lañ ci doon tegtaloo yëpp. Euh, loolee soreek li Serigne Touba bindoon ak li Serigne Touba waxoon kon yooyu yëpp fa tabaarakallaa dikk nga ci kon nag duñ daal di def rek lu dul bàyyi la nga tàggoo su ko defee ñu daal di dem ba beneen nag incha allah ci beneen poñ ñu dikkaat ak yow ci yeneen i laaj kon Cheikh Moussa kon euh, maa ngi lay laaj ana lan ngay tàggoo euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy siiwal muy bokki murid yi ak bokki taalibe yi jërëjëf kon jërëjëf sëñ bi xam naa ñoo ngi lay sant yow bu baax ci disponibilité bi nga xam ne am nga ko tey ba laaj ñu mu doon ci leeral yaatu xam naa boo liggéey des na ci gën a tuur sax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla yàggal ko fi di di gërëm bu baax it nga xamante ne si ñu ngi ci siraatal mustaqiim bi nekk ca di te nekk ni ca te di ca roy roy loo ñañ leen booleel ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen fan bu gudd te yàlla def ci Sénégal jàmm période ki gën ci Sénégal yàlla na ko suñ borom jox Sénégal yàlla def jàmm ci diine ji def ko jàmm waay mën a nekk xam ne moom nga fa kon ñi ngi jox di daje rek eh, ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf kon loolu mooy émission bi nga xam ne moom lañ doon indil tey ci Ormay Touba àndoon ceeg seen mbokkum taalibu Moustapha ji taalibu Serigne Moustapha Massamba kon Cheikh Moustapha kon ñu ngi lay sant di la gërëm kon di la jox dig daje rek ci beneen eh, numéro incha allah boo xam ne si dana yaatu lool ci waxtaan yu bari yoo xam ne si foo xam ne dëkk bii nga xam ne mooy Touba incha allah xam naa dañuy bàyyi ba beneen ajuma rek incha allah su ko defee ñu continue ci yow. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu barakat Cheikhul Khadim